fii si Gambia liñ dund ci parti Pastef bi a xam ne mooy tas nan parti Pastef bi ndax tëj nañ Ousmane Sonko te xamaguñ kañ la koy jugé loolu dañu dañ fi ànd ak naqar fii ci Gambia ndax suñ candidat bii di Ousmane Sonko daf ñoo ne suñ mbëggeel ci moom ak suñ cofeel ci moom suñ jéggee ne ma nga police rek fanaanul këram rek loolu métti la si ñun kon dañuy wax ne Macky Sall nga la waay mu bàyyi Ousmane Sonko mu dem ñibbi këram si njabootam dafa am famille parce que na ko jàppe comme doomu Amadou Sall boobu jur tey Amadou Sall bëggut tey ñu dem di ko dundloo comme Ousmane Sonko li mu dund képp koo xam ne nee nga Sonko lii muy dal dafa bëgg lu fi fii képp koo xam ne tegoon nañ ko sa mag ñu tegoon ko sa waajur wallaahi azim du la neex dëgg nag yàlla moo ko moom te ñëpp xam nañ fi dëgg gi féete ñu war a wax wax nañ ñu war a jëf-jëf nañ mais Macky Sall mooy tànqamlu te deful li mu war a def Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga dellu ginnaaw ci lii nga xam ne moom nga jubtee ndax candidat bii ñu am muy Sonko daf ñu jaral lu ne te daf ñuy tax tamit ñu def lu ne moom rek la ñuy wër moom rek la ñu bëgg daf ñu jaral lu ne ñu tax ñu jug moom rek la ñuy xeexal ngir yàlla deful waxul tey premier dëkk bi da nga ne corruption da nga ne viol nga ko viol jeex ñu ne corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse amul parce que jeunesse bu âgé vingt et un ans amul corruption de la jeunesse foofu foofu mënuñu fa corruption de la jeunesse ñu jógee ci corruption de la jeunesse tey ñu ngi ci lan ay volet koo dem jënd jox ko su tey ay nit ñoo pare sacrifier seen life ngir moom dañuy wax Macky Sall nga bàyyi ñu suñu candidat ñu dem ak moom élection 2024 daal lay gagné si premier tour incha allah fal ko. damay naqaru d' mooy li ñu def détenu bi Ousmane Sonko ndax boo xoolee fi ñu ko jaaralee yëpp yaakaar naa ay ay stratégie lañ ko jaaralee ba tey rek lu ma naqaree tamit en même temps tamit ay ndaw ñu bëree bare bëree bëri ñu ngi ci ñàkk seen bakkan beneen chose bi may njëkk wax mooy tamit damay njëkk a d' abord li ma waroon a mooy booy yi des si géej bi ñi nga xam ne dañuy dañuy dugg di di jëm a am dara di jëm a soutenir seen famille far yàlla natoo leen ci géej bi di leen jaale yàlla na yàlla yërëm waaye Sénégal nag pour l'instant li fa xew nii naqari na ma trop tant que sénégalais bi ma doon tamit Sonko di ko ñaana yàlla yàlla na yàlla taxawu tamit te nguur gi tamit ñi ci nekk nañ bàyyi xel askan wi te ne askan wi ñoo leen fi tegoon te keneen ku fi nar a ñëw tamit mu bàyyi xel li fi nekk te xam ne li fi nekk tamit ñun ak ñoom ñoo koy dund ndax ñun ñëpp nous sommes des sénégalais réew moo xam si ne am nañuy kilifa ñoo xam si ne fuñ toll dañ naan da ngay dégg ñu naan la kii bu fi nekkoon kii bu fi nekkoon waruñoo dépassé loolu xanaa kon Sénégal boog ña fi nekkoon ma fi jógee la Sénégal jeex ci borom xam-xam te pourtant Sénégal ngi existé ak xam-xam ba tey Sénégal li ñu xaar ci nguur gi mooy ak li ña xaar ci nit ñi mooy nañ delloo si jàmm tey wax ak nit ñi jàmm tey wax ak nit ñi dëgg te tamit nguur gi yaxanal mbir yi jàppale ndaw yi ñu gën a mën a amub liggéey ndax am réew balaa moo mën a dox ndaw ñi am liggéey am luñ jàpp waaw sama bagage lu ci bari yenn Sandaga laa ko yenn yi Colobane laa koy jëndee. donc dinañ am ay pli ay euh, difficultés yu ndaw rek ndax boo xoolee transport bi ñëw oto yi bu bu gars yi baree tali pour oto yi di gaaw a ñëw tamit problème lay doon daanaka am réew bu xasee bay démarrer ci ay problème rek doo xam fan lay yem moo tax ñuy ñaan yàlla yàlla wis si ndox bu sedd. dañu dafa ñu naqari trop parce que Sénégal dafa bokk ci réew yoo xam ne si ne yi gën a jox ceeb ci la boobu waaw ñu bettu ñu nag yi ay kii ci ginnaaw man du ma mën a gëm ne Sénégal lii dana fa war a mën a xew quoi affaire dafa ma naqari trop nekkuma Sénégal de waaye comme maa ngi Sénégal euh, instant dama am kersa sax comme di comme di wax ne man Sénégal laa dëkk waaw te last time doon fu ma toog boo waxee man man Sénégal laa sama loxo fu nekk mais li fay am nii dafa ma rusloo bu baax parce que foogu ba fa woon comme lii dana am Sénégal quoi ñu ñu dal rek xam ne affaire yi politique la rek politique la rek Macky Sall avant muy toog lii xewoon na soo nga moom itam mu bëgg toog lii de am ñu xam ne laal politique la rek ñun ñun ñi nga xam se ñooy peuple bi ñu xam bu baax fi ñu teg suñ li ñu def ak li ñu wax parce que gars yi moom mooy loolu politique ku ne xam na ne mooy loolu da nga leen di jàppale ban am li ñu bëgg mooy loolu waaye nag di ñaanal senegal jàmm rek am fa daal parce que Sénégal su méttee rek fi day métti parce que fii ak Sénégal ñoo bokk ndey baay bagage yu bari yu dee ñëw fii Sénégal café yëpp Sénégal la day jógee ba kaas yëpp Sénégal la day jógee comme Sénégal amu jàmm rek ñun danay am problème fii ay dañuy ñaan réewum Sénégal yàlla dafa jàmm ndox ñu jàmm la ñu xamee waaw loolu jàmm xamuñu ko waaw dañuy ñaan yàlla def ndox mu sedd guyu guyu ah xam naa ne tamit mal mal attaan yi dafa am si réewum Sénégal waaw mën naa ne diggante Macky Sall Ousmane Sonko mën na mën naa bañ a nekk problème mais ñu nekk seen biir la di leen wax ne comme ni ko nit ñi waxee rek Macky Sall na ko seetaal bu baax ba baax a baax a baax fi muy teg tànkam way te bañ a déglu ñi nga xam ne da nga koy jay réew ma nag moom maanaam ñun naan ñiy gàmboog ñuy raas déem waaw daa am ñoo xam ne dañuy woote woo bëgg Sénégal te bëgguñu Sénégal daa am ñuy woote woo Sénégal te bëgguñu Sénégal te ñun nag amuñu lu gën a kawe Sénégal ñun loo mën a am ak foo mën a nekk ñun Sénégal moo ñu gën a lu mën a am kon rikkuwaay suñu dëkk ba rikkuwaay nañ ñu ko defaral ndax fu mu doon kenn mën la tuta xëy kenn mun mën la tutaw def dara lu dul lan am Macky Sall wàcceel Ousmane Sonko rikkuwaay nañ ñu jàppale suñ réew ma ba nga xam ne jàmm jàmm buñ soxla jàmm bu ñu ñëpp xamee Sénégal dañ daan wax na Sénégal réewu teranga la mais léegi Sénégal si boppam réewu fitna la léegi ñoo gën a bëgg fitna si réewum Afrique te loolu c'est pas normal ñoo ngi koy ñaanal Macky Sall bu baax a baax a baax ngir yàlla Macky Sall ñoo ngi lay ñaan way gir jëbi yàlla ak ngir jëbi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñoonu la koy ñaan rik waay lii nga teg sa tànk bu dee bu dee bu dee lii nga fii nga teg sa tànk day continuer di di ay Sénégal ñoo ngi lay ñaan nga tegg sa tànk bu dee woote bëgg sam réew bu ngay woote dëgg la si yow ñoo ngi lay ñaan ngir jébbi rasulilah ak sallallahu alayhi wa sallam nga tegg sa tànk ba nga xamante ni tey jii Sénégal dina mën a delluwaat si jàmm ñëpp ñemewaat kenn ku nekk mën a delluwaat si sa yite ndax Sénégal jamono ji grand métti na lool ma métti na boobu métti ñëpp metti na tar na surtout surtout suñu doomu réew yi nga xam ne ñu ngi siy dee ñu ñu ngi wax suñu doomu réew yi di dee si ndox mi ñoo ngi siy wax prégun si ñu ñu indilaat leneen suñu kaw ñun danoo maar danoo maar danoo sonn rikk waay nañ ñu dimbali baax a baax Macky Sall politique bi daal dafa doy waar mun nga tamit politique boo ko booy toppa booy booy boobu daal ñoom daal dañu doy waar dañ tëlim tamit wax na ne du taxaw trois mandat jaama ñëw na Ousmane Sonko tamit daa bëgg a na ko bàyyi mu taxaw yëpp la nu ut jaama bi parce que bu Sénégal amee jaama rek Gambie am na jaama te bu Sénégal amul jaama Gambie du am jaama de gis nga nu mel nii mu ngi métti si ko fii bu ñu nee ëllëg yow ka ñun naa Sénégal jaama rek lañ koo ñaan mu am jaama rek loolu ñun loolu lañ bëgg ñun Gambien ñun nooy gën a sox billaahi wala ñun dañ soxna trop parce que looy gis fii ëpp doole bi yëpp yu bëri Sénégal lay jóge bi yu yu bë jaxatu fii fajarment bi fii la ko gars yi di wàccee suñ demee ba loolu war koo tëj ñaanuñ ko yàlla sax mu tëju boo bi sax duñ ko ñaanuñ yàlla mu tëju billaahi wala taala ñun kay ñu ngay ñaan yàlla ga Sénégal moom glace sotte ko fa rek lañ soxla